ja mooy waajal mooy lépp mooy ndey lépp ci kër ga ah. moo ëmb lépp ah aawa waaye na góoñi moom dëkk nu fenn dañuy wër rek nu oto ñu oto di wëre moom na góoñuy wër ñoom na gooñu xaa ñu defa ñu ngi fas si ñaare waaye nag pourtant nag ah aawa mooy nday mooy baay mooy lépp waaye na gooñu moom dëkk nu fenn dañuy wër rek te yàlla tax waaye nag fa ndox doon boo demee fekk fa tepp teppal man man waaw aawa ah yi dina ñëw mais ñaareel na ñoo gën a soxor kale moom waaw ñaareel moom xam nga ñoom dañ ci defante la nag ndax dañuy ñëw fekkee aawa ah yi def loo xam ne mooy loolu léegi nag soo ñëwee nag fekk ku tabax nag dara il faut nga ñëw def loo xam ne kooku defu ko woon yee salaat moo tax aawa ah yi ñoo gën a metti daal ñaareel ñoo gën a metti la daal ñëppay jënd nag mais ñaareel moom ñoo ñoo dàq jënd ko xam nga ñoom dañ leen xajal moo tax moo tax dañuy wut bëgg place quoi moo tax bu ñu ñëwee moom dañuy dañuy jënd moom sans waxaale yooyu ko waaw jumukaay yu baax yëpp ñoom ñoo ko xam quoi franchement. ñaarel yi ngeen ci gën a ràññee amul yeneen parce que position dem na ba ñeent quand même mais ñaareel yi. waaw ñaareel ñoo ci gën man ay client quoi mais bariwul ñaareel daal ak aawa yi ñoo ñoo ëpp quoi. client non ñeenteel mom ah, gis-gis tamit ñoo gis mom ni par rapport ah dama fi ne nangam nanga ma bariwul mais ñoom nag moom macha allah laf cat waaw. man ñaareel yi laa àndal ndax parce que ñoom ñoo ñoo xam bagage yi valeur yi te ñoom euh, et puis bu ñëwee ñoom pour ñoom ñu nekk fii ah dañ dañu waxaale dañuy ñëw fii waxaale yow jox ma lii nii nangam mais ñaareel bu ñëwee wàcceel rek lañ lay wax wàcceel ma calculer ñoom amuñ sax liñ fi nekk naan la wàññi lii nangam ñoom moom dañoo xam yu baax yaa ma gën a xam xam nga ñoom la si ñaareel yi ñoom baax rek si ñoom la fekk baax cuuraay yu baax yaa ma gën a xam yëpp. ñoom dañuy ñëw rek xam nañ ko ñooy si bëri dañuy ñëw rek di la wàcceel ma li yii laa bëgg yooyu mais away ah xale bu ma leen nag ñooy samay xarit bu ma kenn mere nag mais ñaareeli man man ñoom laa àndal mooy samay ñooy samay xarit aawo duñu waxaale aawo jënd rek leen xam ndax danoo uuf yëpp ñëpp aawo demuñu fenn ña nga uuf biir kër ga ku ñëw ne uuf la uuf ndey uuf baay uuf lépp kambal li lépp aawala ah, sama xarit. est-ce ah. si dafi am dafi yam ah, waa ñaar ñoo ñoo ñaareel ñoo koy def. buñ leen takkalee waaw buñ ñetteel ñoom ñaar ñëpp ñoo yem daal ku ci ku nekk ci nekk daal boo amee keneen daal dangay ngay gën a defar waat daal. mais daal bu ñu <laughs> ñoo ëpp. ñaareelu ëpp nag. ñoo ëpp waaw. des fois da gis koo xam ne daa ñëw fii yenn yenn cuuraay yu xaw a kii mais des day ñëw jënd yu géej pire nga ne waaye yow temps yi kii mun la non temps yi damay damaa am wujj wala wala sama jëkkër mi lool loolu loo ci man dañuy toppandoo ñoom des fois mais it nag ma kenn mere ah. kon góor ñi takk ñaareel ah, a dafa xew man sama grand bi sama ay bëgg mu am ñaareel mais ah mbaa soxna si dama mere sax. man kay bari na client yoo xam ne ay aw dañuy xaar bañ takk leen wujj ñu door a jóg am na ñoo xam ne dañuy ñëw ne ma man de sama jëkkër dafa ma takkal wujj fan yi mais da ngay gis day am changement quoi. dañuy commencé ndugg yoo xam ne sax daaw ñu ko ndugg cumukaay yi bari ñu koy jël te daaw ñu ko jël te loolu amul sens quoi jigéen boo dee sëy da ngay préparer sa bopp quoi di defar ba mu baax bala nga kii mais xaar ba takkal la wuj ngay doon fu nga dugg fa da ngay tardé te ñaare dañoo joŋee de dañoo bari ay bagages yi bilaay góor ñooy jël ba góor ñooy jëlee bu na amee ñetteel mooy loolu ñu dem si day wër rek ñoom dégg nga ma wax ñu ata di wëre loolu nañuy wër noonu sama xare ñoom dañuy wër rek nekkuñu fenn li lañ ngay wax bi ñaaree la ñoo koy akimoo mbot bu la nexé da ngay jël sa parfum rek ko ginaar la nga pompe ko ci rek sa way teddé rek yam gëna xam nga koy ki ci film ci rok rok xadi coin bu la nex rek yëngal gëssam lañ koy way daal ñaareel li nañ ci kon li nañ jël wa li mom li mom la ñuy yëngal mom temps yi moom mom moom mooy bomb ak bi ni bi mom ko xol xam na nga xam lu mu doon nii li la la ni wa ba paré lan la ci bi mom miel xam nga miel mom moy lepp yalla bu mu am mant nak bu baax mom rajo mo rajo lay doon waaw. yu baax yëpp lañuy jënd même loof bi yëpp dañ koy jënd yu xew si jamono la dañ koy dañ koy jënd waaw ak secret famille yi mooy nekk ci roq bi bureau bi bureau moom kenn ku xam na ko ak élage waaw cumukaay yooyu moom jigéen dañ koy jënd bu baax a baax a baax. dafa am bureau bi mooy. dafa am bureau antenne bi ñoom xam nañ ko boo nee bureau bi rek mooy yi nga xam ne mënuñu koo wane. mais suñu ñëwee dañ leen koy wan pour ñu ci caravage seen góor ñi bu baax a baax. seen ci kër xam nañ ko baax. Ah ah moom moom moom moom am nañu ci xam daal man sama bopp xam na mais am na ñoo xam ne moom mooy loolu.